aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi soppe yi di safoo la RTS ñu ngi amati mbégte di janook ci waxtu wi ci seen jotaay bi ñuy tuddee biddeewu xeet wi ñu ngi wax naan asbaxna wa asbaxa almulku lillahi la sharika la la ilaha illa huwa ilayhi nushur ñu ngi delloowaat di sant sunu borom subhanahu wa taala mi ñu may ñu yewu ci jàmm ñu ngi ñaanal kilifa diine ñaanal kilifa aada yi ñaanal kilifay réew mi ñaanal kilifay kër gi ñaanal leen ñaanal sunu bopp yàlla may ñu bëccëgug jàmm yeewoog jàmm ñu ngi ziyaar mbooleem ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla delloo seenug afiya ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bërëbuk yarukaay yi yal na leen yàlla subhaanahu wa taala tinkin ba ñu delluwaat ci njaboot gi jotaayu biddeewu xeet wi jotaay la woo xamante ne la RTS moo leen ko baaxe ñu fas yéene ci ànd ak gaa yu baax yooyee yàlla subhaanahu wa taala tànnaloon sang bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy assahabatul kiram ak attaabiun ak góoru yàlla yu baax yi nga xamante ne ñoo yëkkati drapeau la ilaha illallah di ko wommat tasaare leeruk lislaam ba ñi gëm yàlla ci kaw suuf mun kaa jot diine ji mën a yegsi ci ñun ñu ngi koy tàmbalee ci jotaay ak góori yàlla yooyu borom bi subhaanahu wa taala tànnaloon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy alsahabatul kiraami ridwanullahi alayhim abdullah bnu mas'udin radiallahu anhu dafay wax ne sunu boroom subhaanahu wa taala dafa xool xoli jaam yi mu gis ne xol ba ca gën a laab xol ba ca gën a sell xol ba ca gën a teey moom mooy xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tànnal ko boppam tànn gën ji mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu xoolaat xolu jaam yépp mu gis ne xol yi ci gën a rafet yi ci gën baax mu tànn leen àndaloon leen ak yonent tibi sallallahu alayhi wa sallam ñooñuy ñoom ñooy xayrul quruun ñooy ñi gën ci xeet yi ñoom la yàlla subhaanahu wa taala gërëm comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxee borom bi subhaanahu wa taala mu ngi wax ci biir alquran moom borom bi subhaanahu wa taala gërëm na ñi nga xamante ni ñoo jiitu ci diine l'islam gaa yooyee ñoo joxe seen alal gaa yooyee ñoo joxe seen deret ñoo tuur li nga xamante ne moom mooy seen deret ñoom ñoo joxe li nga xamante ne moom mooy seen alal ñoom ñoo défendre rasulullahi sallallahu alayhi wa ñoo ñooñee la ñu mbugal ñu jànkonteeg ay xeetu mbugal yu bëree bëri ñàkk seeni alal ñàkk seeni njaboot ñàkk li nga xamante ne moom mooy seeni kattan tuur seen ñaq ba diine ji tey jii man ak yow ak ñeneen ñi nekk ci kaw suuf mun a jot ci leeruk lislaam mun a jot ci njubu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun a toog di julli te kenn duñu bund xataal di woor te kenn duñu bund xataal di joxe sunu azaka te kenn duñu bund xataal di dund sunu diine te kenn duñu bund xataal gàcca ngaalaama ñooñee loolu moo tax ñuy wax ni ñi àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ay biddéew lañ xam ne ku ci xool kenn rek dina la guider dina la orienter xam nga borom bi subhanahu wa taala tagg na leen ñoom ci biir alquran muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum borom bi subhanahu wa taala tagg leen ci biir alquran daa dina muhammad moom mooy yonent yàlla ak ñi nga ne ñoo ànd moom tar lool ci ñi weddi borom bi subhanahu wa taala mais ñu doon ñuy yërëmante seen biir borom bi subhanahu wa taala taggat leen ci biir alquran wassaabiquuna al awaluuna min almuhaajirina wal ansaar borom bi subhanahu wa taala di wax ni gërëm na ñi nga xamante ne ñoo jiitu woon ci diin al moo xam ci ñi gàddaayoon jóge màkka dem medine la wala ñi nga xamante ne ñoo dëkkee woon Médine ak ñi topp seen ginnaaw jaar fi nga xamante ne foofu lañ foofu lañ jaaroon ñoom ñëpp borom bi subhaanahu wa taala gërëm na leen kenn ci saxaabatul kiraam yi dafay wax ni yàlla subhaanahu wa taala dafa tànnoon saxaaba yi ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax ñi jamono doon ak moom te bokk ñu woon ci saxaaba yi mu ne leen mën na am yéen a ëpp leen di julli saxaaba yi mën na am yéen yéen a ëpp loo leen jihaad ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala mais saxaaba yi ñoo leen gën lan moo tax parce que ñoom dañoo dëddu woon àdduna xéroon lool ci li nga xamante ne moom mooy àllaaxira sang bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama santuñu pour ñu fonk leen santuñu pour ñu wek leen ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim moo tax mu wax ci benn xadis laa tasubbu asxaabi fa inna axadakum law anfaqa mithla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim wala nasifa aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam sang bi sallallahu alayhi wa sallama ni ñu fonkal ma leen sama saxaaba yi fonk leen samay saxaaba ngir ne kenn ci yéen bu leen ŋàññ saxaaba yi bu leen leen xas bu leen tilimal seeni der fonk leen parce que kenn ci yéen amul lu muy def ci diine l'islam ba dab ñi nga xamante ne moom mooy saxaaba yi mu wax ne su fekkonte ne nit dafa oomal am alal daa di joxe ci yoonu yàlla subhaanahu wa saraxe ci wàlluk or lu tol ni montagne Uhud ci wàlluk or yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne loolu mu saraxe ci alal na mu bëree tolul nëbug saraxu kenn ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama delluwaat wax ne xayrul quruuni qarni summa alladina yaluunahum summa alladina yaluunahum summa alladina yaluunahum aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ñi gën ci xeetam moo ñi jamono ak moom ñi dund téeméeru at yi jiitu ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ñooñu ñoo gën deuxième siècle bi topp ci troisième siècle bi topp ci ñooñee la ñu fas yéene jagleel leen ay jotaay fajar ju nekk ñu fas yéene ànd ak yéen ci biddéew yi ngir ñu mën a xam saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñan ñooy ñi jiitu woon ci ñoom ñan ñooy ñi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégaloon ne leen ne yéen aljana ngeen jëm moo xam di góor wala di jigéen am na ay saxaaba yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal na leen fekk ñu ngi dund ci kaw suuf xamal leen ne yéen aljana ngeen jëm di ay góor di ay jigéen dinañ xool jàmbaari lislaam yooyu biddeewu lislaam yooyu nga xamante ne ñoo faq ci biir lëndëmuk jaahiliya ñoo faq ci biir li nga xamante ne moom mooy lëndëmuk réer ba leeralal xeet wi ba ñu jot ci xéewaluk lislaam ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñun ñoo toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan gis rasulullahi sallallahu alayhi wa joxe li nga xamante ne moom mooy seen bakken dina feeñ ci seeni taxawaay nga gis nit koo xamante ne wax nañ ko xasal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saagal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo xamante ne dañ koo wax ne biñ ko jàppee di ko mbugal di ko torturer ñu ne ko dañoo bëgg rek nga imaginer nga imagine que ne fii nga nekk fii ñu la jàpp di la torturer imagine rek que ne yonent bi moo nekk sa place ñu gis seeni taxawaay mu wax leen ne tontu leen tontu goo xamante ni la mu ëmb yëpp mooy wekk yonent bi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Muhammad fa mu nekk ci biir këram fa mu nekk ci biir njabootam ñaanuma yàlla dégg di ko xosi astuma laak ngeen di am yoon ci moom ba di ko teg li nga xamante ne moom nga ngeen may teg ñu ñoo bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñoo gisoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooñu toxalal waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dinañ gis ñan ñoo ci teewoon li nga xamante ne moom mooy xarey badar ñan ñoo ci teewoon xarey Uhud ñooñu ñëpp dinañ ànd ñoom ci biir jotaayu biddeewu xeet wi biddeewu xeet wi tamit du yem rek ci li nga xamante ne moom mooy saxaaba yi dinañ génn saxaaba yi dem ci ñi nga xamante ne moom mooy taabiin yi dinañ génn taabiun yi dem ci taabii taabiin ñi nga xamante ne ñoo toxal diine ji ci seen wàllug xam-xam ba yegg si ci magi réew mi ñi nga xamante ne ñoom tamit ay biddeew lañ biddeewu xeet bi lañ star lañ ñoom ñooy staru xeet bi ci jamono ji nga xamante ne référence dafa manqué moo tax ñu indil leen biddeewu xeet wi ngir ñu mun a am ay référence xool valeur yooyu nga xam ne ñoo yoo ci valeur yooyu la jaar ñoom ba jottali ñu li nga xamante ne moom mooy diine ji liggéeyal seen adduna liggéeyal seen àllaaxira ci jamono ji référence manqué ci jamono ji nga xamante ne lu ñuy tuddee référence dellukaay manqué na suñu indiwaatee biddeewu xeet wi dina am ñu mun a niitu ndax ñu mun a gis fi ñuy jaar ñu mun a jaar faga gaa yooyu jaaroon bu ko defee ñoom bu ñu texee ñun tamit ñu ànd ak ñoom texe biddeewu xeet wi di ay jotaay yoo xamante ne moom la leen la RTS baaxee fajar ju nekk ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla sàmm sàmm leen may ñu kenn doorug jàmm ba numéro bii di ñëw incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu